ko tëj bunt bi damay dem nga jàpp tëj bunt bi damay dem. bi def sa lamiñ laa wax sama der mënoo ko yàq ñandu leen ñandu leen sama réputation dafa rafet nga bëgg faa dem ñu naan sa tonton Doucouré sa tonton Doucouré moo la daax nga may joxoñ sa ndey bu sa ndey bu ñu ko joxoñ eh dafa def eh eh jërëjëf ma léew nag dëgg léew nag. naanoo léewal naanoo dëgg. mbuur. ku doon xool bi yéen yi war nañu xool. mais gars yi sari mun ma mun maa wax lenn mu am gisee sama sañte bu baax bi sax xam nga may génn. xam ne da ngaa mën a taxawaal. ah du ma doxi samay soxla. xas sa tànk bi gaaw na. yow yaa raw sax yolox laa. dëkk bi tamit boo doxul sa dara du sa dara du sotti di bàyyi ma dox rek doom yaay. baax na mën naa ne. ah rek man maa ngi sama téléphone bi. Amina. ana sa wati. ak kuula. lii. lii. mais sama nuage baa ngi rafet nii. merci. def si noir bu baax. laa la suuf bi bu ne muut muutaaral. gis naa ni nga def. sama ñàmbur. nu may def. yow bàyyi mu man. sanse bu roog soow. ñu ko sanse bu roog soow. yow may ray bi. yow lan la yow amina romb gauche droite nuyu la lan la ay ki seetlu na fa ñeent nuyuwu ma te ki mhm. yow ya tax ma dugal ko fi ginaaw yalla yow ya sama xarit deug ci sama doom la dama bëgg nag nga waxtaan ak mo mhm. deeng nga li ma la wax man mo fane ni ma leen seetloo hadiza dara neexuma ci yow boo toggee amina du lek bo indee sa lek indi mu ne la suur naa boo attaayaa du naan bu attaayaa doo naan loolu tamit pour la man loolu sax concerné wu hmm. ndax moom ñoruma yaa ma ñor waaw loolu am tey jii bu ma bëggee du fanaan ci kër gi du fanaan ci kër gi def sama day mën a rek li romb ma du ma nuyu wala mu faw num ko gën a bandi maa gën a pànk Xadisa foofu yeggaguñ fa nag <laughs> man sa nit laa nga jàpp ma bëgg ma dugal ma sa biir bëgg ma ba mu jeex te dawoo ci man dara man tamit daw ma ci yow yoo taa hmm. comme nak amina bu moko fi indé nak ni ma téy nga ko téye man gis naa loolu nit ku nek nak da am ko koy rusee ak lèr té te rus la ak lèr mais bu dul woon loolu fii du fi rom rombaat dotul am xam loolu mom dotul am na soxol xol sedd ndax amina mi dina ko amina amina kay ndax xamna sama wax mom du bari dama nan patap ak heure kay ngeen mi rek neel pat pat que arme la eh, amina maa la amina est ce que doo photo wala taxaw ni wala arrangé li ma la bëgg wax bëggoon nag jëlal maa mau kagak ma wax ak yow xatina damaa bëgg may wax ak moom ngeen dund jàmm ak salaam gis nga jàmm dafa neex man jàmm laa bëgg ndax man damay xat ngeen amul jàmm duma kok? ci jàmm. jàmm kenn bañu ko. waaw ci kaw nga bëgg ko. ak a neex. Amina Amina yow war ngaa romb xadi gauche ak droite bañ na ko nuyu def sa aller nuyu woo def sa retour bañ na doo ko nuyu pour man li ma mere xam na am yow mi waaw ndax man xaddi mënu ma fee ne bu may ma laaj ba pare muy doxaat bu ma ko wax loolu rafet na man Amina man yéen ñi manqué ngeen de yow xam nga la la man su ma fi ñëwee yow yaa tax ak a leer su ma fi ñëwee yow yaa tax te man nag néeg bi dëkkuma fi rek te du ma joxe de <laughs> non ñàkk joxe bi sax ak joxe bi sax amul benn problème boo yëkkatee jox xadi mel na ni mën nga jox ndax man maa la présenté xadi boo xamee xadi yàlla ak mën a tax mhm. Amina dafa war a jekk muy neex ñu bokk benn néeg mais seetlu naa boo attaayaa xadi du naan xadi bu indee lekkam nga ne doo naan ngeen teg ko fa waaw c'est parce que moo ko dund ak man fii lëngoo neex na de mais koo ba mu dama ay bagam waaw moo wax li ma sax dafa mën ne mën naa mhm. gis nga Amina xam nga lu ma bëgg ayoo nit moo tax ma xam la te gis nga laaj maa ngi moom ñoo bokk kër gi. non bëgg nga déglu ma. dama la déglu da ngay meroo nag xulóowu ma de dama bëgg nga déglu ma parce que dañuy waxtaan. wax bu amul dégloo du neex déglu ma àndal la tekk ak tey ma wax li ma bëgg a wax. gis nga kër gi boo rombee nuyu woo ma man la neex yaa ngi dégg pour néeg bi maako mu maako nuyee danga may déglu. boo ko moomee tamit damay joxe. ma ne la danga may déglu de. du ma la déglu parce que da ngaa manqué li ngay wax. da ngay déglu ma wax li ma bëgg a wax. ba pare nga wax li nga bëgg a wax su fekkee mën naa ne ayoo moo tax ma xam la ba may xam ayoo xawma la woon ayoo dafa ñëw fii diis ma say soxla ma ne ko amul problème parce que ñun ay jigéen lañ problème ku ne lay dal gis nga laaj maa ngi moom ñoo bokk kër nijaayam moomu yéen xataluma benn yoon man laay ba muy fat gen gisuma ko fan laa ko gisee yëguma ko damaa jékki-jékki di waxtaan fii dégg coow li xanaa da yow yaa ma may laaj dëkk ak nit ki buy dugal ak a génne war nga xam waaye taxul ma gis ko maa ngi sama néeg ah, gis nga fay boobu ngay wax damaa yàgg di fay te gisuma leen namuma ay fay man loolu tiitalu ma waaye gis nga nit boo ko fekk see da koy jox cër bu mu moom gis nga néeg bi da ngay mën a romb di ma nuyu ci nii mbaa ci nee boo ko mënul nga génn. si biti ah déedéet déedéet samay wax nag xam nga ne samay wax du neex. déedéet man wax du neex. bu ko lañ koy jox waaye yelloo woo. boo ma yelloowul nag yow si biti. wala eh, nga xool noo de. déedéet déggoo ma de. waaye nag yow si biti yow dama ne yow si biti déggoo ma de. maa nga xool noo def. maa buutoo waaw premier acte kan moo uti réunion. xam nga ko Babou la. ban fit ak ban osé ak ban audace moo la may nga dugg sama kër naan da ngay woote réunion. ah waaye Babou Coulé ñun ñoo bokk bi ñu ñett Babou Coulé bu ñu xuloo du ma ci wax. bu mu ñaar wax ko ah. bu mu ah, woo dëgg la rek. ci biir ayé. war na à l'intérieur. Bathie yow naa da ngaa programme kër gi moo koy teg ci loxo. eh waay. <laughs> à partir d'aujourd'hui root di fay. ndeysaan. damay wut koy fóotal. eh waay bu ci yem. ma dégg ci nga gëdd ko gëdd gëdd mooy sa génn. maa ngi lay dégg ma daal di dégg ko kii maa ngi moom ci néeg mu romb ma nuyu ma dama koy fubal. te yow sax aw ma la may wax. waaw li ngay wax wax ju bëri dama ko toog. neexul ah, lu ma def bu la neexee heure bu la neex ñëwal wax. robinet baa ngi ne na nga rotee woon foo teewaat ko. sabet bi yàqu. Ah, sabet bi yàqu. maa la koy maye ba mu neex. jax loo bëgg yàlla jàmm. jax